ahasubillahi mina seytaan rajim asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare ñaan sunu borom kàttanal la te may la ak wér ba li nga naala liggéey ci dëkk bi lépp sunu borom jàppale la ba mu yegg ba nga commencé waat yeneen i naal mu mel na Mbàkke tey jii dañoo ñëwoon pour di la euh, laaj ay question lay doon yoo xam ne ci askan wi la jëm mu mel ne gis nañ nga ànd ak mbooloo mu bari wax dëgg yàlla yore say ndimbal dugg ci biir askan wi di leen di jàppale ci yoo xamante ne bii état moo leen ci waroon wóotu ak maire ñu gis ne yaa ngi ci def liggéey bu rëy rëy boo xam ne ci wàllu ay taali làmpak ak euh, wàllu ay dimbali nit ñi ñi nga xamante ne seen loxo jotuwut seen ginnaaw ay jàkkaak ñu gis ne lépp loo xamante ne nit ñaa ngi koy soxla rek dañu waroon a dem ci maire ak di ko jàmbat état ñu gis ne yaa ngi ciy sóobu di ci liggéey liggéey bu am am solo wàllu taali làmp yi wàllu éclairage public yëpp ñu di ko gis ñu doon laaj programme boobu sëñ bi nga tànn ci politique ngir duggee ko ci dëkk bi. ñu mel ne it marché maam Binta bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee soxna Binta Jaxate way juru sëñ mu bi ñu ñëwee fi jàmbat la ko nga def ci liggéey bu am am solo ba travaux yi commencé na fi mu nekk ña nga ci liggéey ba lépp di ay mébét yoo xam ne mébét nga ko moo taxoon ñu diggoon tey jii pour am yu mu ci doon laaj. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi di leen sant ci seen teewaay bi nga xam ne ñoo ngeen fi tey ngir xam li nga xam ne yoon wi nga xam ne moom lañuy dox ngeen jotali ko population bi mu doon suñu ndimbal ndax ñun ñoo war a jóg dem ci population bi jéem a xam luñ nekk jéem a xam seeni soxla jéem leen to saafa jéem leen ko saafaraal itam waaw loolu nga wax ni nga ko ni nga ko ni nga ko laajee dama ci tontu tontu bu gàtt rek mooy nun suñ pas-pas mooy taxawu taalibi Sëñ yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaye population bi nga xam ne moo dëkk ci dëkk bi yëpp ci département bi yëpp ngir lépp loo xam ne seen yitte la te jotluwuñ ci ñu fexe bañ jot ci ndax ci réew mi lañ bokk eh, am ci droit waaye lu bari egseegul ci ñoom walla lu bari mën mënuñu ko ñu xam ne it xëy na état yaa dafa jabootee réew mi yëpp mënta xëy defandoo lépp ba tax na ñu bari dañ tumuraanke ci yu bari commune bi ñu dëkk itam ñun maire lañ xam nañ li nga xam ne moom la commune yi jànkonteel ci ñàkki moyen euh, ba nga xam ne li war a def ñoom itam mënuñu ko def rawat na tuubaa gi nga xam ne tey boo demee Dakar lu mat quinze xaw lu ko jege commune d' arrondissement ña nga fa teewut mu am commune bu mag bi nga xam ne la ñooñu attanul moo koy def te Touba gi daanaka mook Dakar googee sorewuñ ni ñu def Dakar def ko Thiès lu mel noonu sax moo waroon a nekk tuubaa gi ni nga xam ne moom lañ def ci campagne bi euh, benn Bokk Yaakaar def ko dagg dëkk bi ay zone muy juróom-ñaari zone li muy firi rek mooy dëkk bi àgg na foofu kenn mënatu ko gérer te aw aw découpage boobu amul fi ndax Benno Bokk Yaakaar bi def loolu sax dem nañ ba ci biir ñu gis ne sept zones yooyu ñu ko def sax dëkk bi ëpp na ko kon euh, day firndeel ne dëkk bi lim laaj ëpp na doole commune bi nga xam ne moo fi nekk kon loolu dañ ci interpeller état bi ñu xalaat ci loolu étudier ko ni nga xam ne noonu lañu defee dakaar def ko Thiès muy ay commune d'arrondissement loolu jaadu na fi ñu nii ci Touba ñu daggee ko noonu ndax loolu itam bu amul pertement lay doon ci dëkk bi pertement lay doon ci dëkk bi mooy commune d'arrondissement yooyu li ñëpp am ci réew mi lañ ci am muy ay fonds de dotation ay fonds de concours mën a wuti ay partenaires yu leen dimbale kon loolu bu fekkoon ne tey ni ñu daggee zone yi zone bii amoon na euh, commune boppam commune d'arrondissement euh, mën a am yu ko lu ko état bi yónnee droit yi ñuy fay itam yëpp population bi fay itam di yem ci commune d'arrondissement boobu kon yaakaar naa ne dana yomb lool ñu mën a lijjanti gox yi nga xam ne gox goxaat yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi euh, loolu benn la ci li nga xam ne moo tax ñu jóg. yi nga xam ne xëy na xam nañ ne état bi ko war a def wala commune bi war koo def te accès guñ ci population bi population bi xaar ba tey euh, jotiwuñ ci ñu xool la nga xam ne tollu na ci suñu doole ñu leen ciy dimbale waaye xam nañ ne état la ci la war wala commune la war waaye nag comme ñun tam euh, am na lu ñu leen tane loolu ñu leen ciy dimbale beneen bi mooy ñu gis ne. politique ni ko nit ñi jàppe léegi nga xam ne boo soxlaa da ngay dem ci nit ñi di diggee te la ngay diggee yow sa bopp wóoru ne yow mënoo ko da dem di ko wuti soit nga dem défendre ko ci commune ba wala nga défendre ko ci état ba te xëy na état ba moom tamit ak seegu ci loola dana doon tënk-tënk lool ci politique ngay dellu ci nit ñi saa su ne di leen dig te loolu duñ ci gis dara moo tax ñu xalaat ne ren jii bu ñu jógee di politique war nañoo changer doxin seet li nga xam ne nit ñi soxla nañ ko liñ ci man parce que am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla responsable lu mu ñàkk ñàkk solo dana ci mën dara boo defee la nga man nag wàcc waaw boo defee la nga ca mën yow sa bopp ci say lijjanti ak say pexe wala sa sa poosu bopp nga def ko bu defee loola doon lu wàcc état bi wàcc commune bi waaye la nga xam ne nag mënoo ko te amooy pexeem nga dog koo dem défendre ko fa nga ko war a défendre loolu moo tax ñu jóg jaar ci yoon woowu ngir la nga xam ne moom lañu daan def di topp nit ñi di joxe ay café euh, loola ñu gis ne amul benn njariñ ndax li ci ëpp foofu dem la nga fay bàyyi coow la fay bàyyi waaye du fa bàyyi ak déggoo kon day mel ne jaratu ko ndax dangay ngay gën a xaajale nit ñi waaye boolewoo leen te pour nit ñi am li ñu war a am jot ci li ñu war a jot faw ñu ànd xam liñ bëgg di ko défendre fañ ko war a défendre loolu moo tax ñuy xool yi nga xam ne jàpp nañ ne nit ñëpp ko bokk foo ko def ka dëkkul sax mën na ci am wàll bu dee ab làmp boo dëkkul sax mën na ci am wàll ndax mën na faa jaar guddi euh, làmp ba leeral ko te bu fa bu fa làmp ba nekkutoon mën naa am mën naa dox sax ginnaaw moom xamu fa mën naa dox sax ba dugg ci kàmbu te kon loola loraange lay doon ci ci population bi loolu moo tax ñu jóg xool yu mel noonu nga xam ne muy ay làmp muy marché boo xam ne ñëpp ko bokk xay na ña fa nekk néew nañ doole si yañ fay fay xëy na commune baa ngi koy jël waaye commune da koy centraliser xool priorité yi nga xam ne moo nekk ci dëkk ba mun ko def te accès gu ci ñoom lañ ca mën ñu def ko ca bu dee ndox tam lu mel noonu ñoo xam ne xëy na ndox ma sori na leen néew nañ doole man caa yi te xay na euh, commune bi ak seegu fa ñu jàppale leen ca lañ man bu ko defee nag continuer recenser yu mel noonu ba nga xam ne bu ëllëgee fu fuñ taxaw foo xam ne euh, jàpp nañ ne dara mën na fa jóge ñu taxawal wax leen waxal leen fa mbaa ñu doxal leen fa ba loolu mën a am kon loolu moo waral doxin woowu nga xam ne ren jël nañ ko di ko def ngir xam ne nit ñi foofu rek lañ leen mën a féete ñu féete leen fi li ñuy def nag ñun dëkk bi politique boole wuñu ak moom dañ fay dëkk doon njabootu Sëñ Tuubaa te nit ñi ñëw fi ngir yaakaar Sëñ Tuubaa te ni ma koy waxee saa su ne loolu maa ngi ko jële woon ci wax Sëñ Abdou Lahad mooy dëkk bi lu fi def lu fi waay def Sëñ Tuubaa nga koy defal kon ba muy wax ca 2008 88 euh, ngir ñu woteel Abdou Diouf noonu dafa lim li nga xam ne ab Diouf def na ko fi wax ne lim fi def lépp nag lii la ci bëgg te suñ ci suñ cu la mu fi def suñ Tuubaa la ko defal te lii la ci bëgg comme lii la ci bëgg nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo ko koy defal ñoo koy defal suñ Tuubaa kon lu fi waay def it suñ Tuubaa nga koy defal def ko ngir bëgg boole nit ñi bëgg dimbale nit ñi ngir la nga xam ne yeyoo nañ ko ñu mën cee joti loolu kon ci gàttal mooy tontu question boobu nga xam ne moom nga ñu posé ba tey laaj bi nga xam ne moom lañ ci dolli rek mooy wàllu li nga xam ne mooy activi activité politique yi nga xam ne commencé nga ko ak yi nga mal ci sa kat. xam nga ñun euh, yàlla dafa dogal ñu juddu euh, juddoo ci kanam koo xam ne euh, yàlla da ko joxoon cërub lépp lu mu gis lu rafet wala lu baax mu nekk ca nga xam ne ci sunu maam lay tàmbalee sëñ Basiru mu doon koo xam ne biir kër gi biir dëkk bi biir yoon wi biir tiine ji ak biir réew mi yépp li nga xam ne moom la defoon liggéeyam mooy fépp foo xam ne dégg na fa taal buy tàkk mu dem fay ko mbooloo mu war a tasaaroo mu dem fexe ba boole leen loola ñun ci lañ juddu. ci lañ yaru ci lañ màgg kon bokk na ci li nga xam ne moo jiitu ci li nga xam ne tax na ku lu agsi ci ñun ñu dugal ci suñ kàddu dox ci yàlla diñ suuturaal ba loola sotti ndax ni nga ko waxee joxuñu kenn xaalis neexaluñ kenn waxuñu kenn itam loo xam ne wax ju neex lay doon te doon dëgg waaye nag yàlla ngi ciy suturaal ba kuñ ci waxal mu doy looñu lañ ko wax mu doy ko ba mu ba na ko tax liñ ciy am ñu am ko ci muy ndam loolu nga xam ne moom lañ ci am muy boole ay nit wala manqué la ay nit ba loolu loo loolu loolu looloo ko indi ñun nag na ma ko waxee woon ca meeting ba rek meeting ba nga xam ne moom ma dugaloon ndax bi ma duggee ci APR rek léegi yàggul waaye la ma leen waxoon nga xam ne mooy sama yitte mooy fas yéene jaar ci yoon woowu nga xam ne samay kilifa ci lañ jaaroon ba lépp lu nar yàqu lu ma ci man ma def ko ci euh, kon loolu suñu borom moo ci suturaal ba li ma ciy def foofu dong laa wax rek suñ euh, suñ borom la ak yar buñ ma yar te ma judd ci loolu rek la euh, activité politique yi nag euh, ñun yàlla dafa dogal bañ jógee ca meeting ba ba léegi tooguñu daanaka fu ñu waroon dem fu ne laata campagne bi ubbi dem nañ fa ba tax na nit ñu bari nit ñu ci war a dem ñëpp wax nañoo ñoom ba déggoo ñoom ci kàddu nga xam ne ñun dey lañ waxanteek ñoom mooy lañ fas yéene waaw xamuñu nag ñoom lañ wax ba xam dañ ko defam déet waaye ñun lañ waxanteek ñoom moom lañ fas yéene loolu nag euh, moo tax campagne bi sax xaw nañ cee noppalu ci genn fànn ndax génn yi ñu waroon a génn ngir euh, demat ci nit ñi fekk na ñun fekk na ñu dem ci nit ñi wax ak ñoom tënk ak ñoom loolu lu ci bari noppalu ñu li ci des rek mooy fas yéene la nga xam ne moom lañ man ca lañ ñu waxoon ci seeni soxla ñu def ci lu ñu man loolu ci lañ nekk ah, du nag du dañ am ay benn benn yoo xam ne du ñàkk ñu jóg dem ci ñoom ngir la nga xam ne soit dégg nañ ci ñoom xëy na ak dëgër wala ñu dégg ci ñoom euh, ñu nekkoon feneen ñoo xam ne xëy na mën na indi yu mel noonu moo ñu moo moo ci la ñuy jóg waaye daanaka li ëpp ci suñ nit nga xam ne ñuñ xam lañ woon moom yaakaar naa dem àgg nañ ci ñoom wax nañook ñoom ba tënk nañoo ñoom te xam nañ seen yitte fas nañ ci yéene dox nañ ko waxee woon ak ñoom loolu moo suñu yitte. mooy diggante Serigne Bassirou ak responsable yi nga xam ñi ngi ci dëkk bi ak ñi ñu woowee responsable mu mel na ñoom ñëpp ñu ngi lay bàyyi xel bàyyi gi xel dafa doon loo xam ne jege goo jege président la ngir mu lay bàyyi xel moo tax ñoom ñu taf la ci seen kanam ba kenn du ci dugg loo xam ne yëgoo ko ñuy diisoo ak yow ci wàllu xalaat ak lépp wala xëy na communication bi nga defoon ak ñoom ca meeting ba wax ne leen nekk ci biir du ma teree wax sama xalaat joxawaat beneen boo xam ne lu am solo la mooy ba Bassirou mi dana wuuteeg politiciens yu bari mu euh, ñuy laaj ba xam loolu moo tax ñoom ñu lay bàyyi xel ba ñu baree bari di diisoo yow di xalaat ak yow ci ay xalaat yu bare bari. waaw loolu moom euh, loolu noonu nga ko waxee rek moo ci am ndax euh, xëy na ni nit ñi jàppee politique man moom yàlla dimbali na ma jàppee moo ko politique la ma waxoon ci meeting bi tam mooy dëgg ci man man sàkkuma xeej ak seen ndax boo bëggee nekk ci diggante ñëpp. fas yéene lu yàqu nga war koo defar waroo ci am xej ak seen koo xam da ngay ànd ak moom wala koo xam da ngay da da da nga koy du mooyu moo tax man ñëpp laa yamale ñëpp laa mën a waxal tey itam ku may wax it nag dëgg rek laay wax ak yow loolu ñoom ñëpp xam nañ ko ci man ba yaakaar naa ne wóolu nañ ma kenn ku ci ne man maa wóolu wax ma la nga xam ne moo nekk ci moom te xam ne duma ko ci war kon loola moo indi xëy na loolu euh, man ca nekk xëy na li nga wax dëgg la ndax mën naa am euh, loolu tam du ñàkk ñu bàyyi ko xel ndax cër moom cër rek la yàlla def na am naa cër lu jiitu cër bii ma président di jox président ñëw dolli ci cër loola mën naa gën a wéral mën naa gën a dëgëral loola ndax xëy na buñ buñ jàppee ne lañ la may wax ak ñoom mën naa àgg ci président mbaa mu àgg ci ku jege ci président loola xëy na dinañ bàyyi xel la nga xam ne moom lay seq ak ñoom te te xam ne itam du ma leen ci wor man foofu foofu laa nekk ñoo ñoom itam xëy na loolu lañ gis ci man ndax politicien moom li ci ëpp duñ wóolonte waaye nag buñ xamee ne man bokkuma ci ñooñee yàlla man mën naa def mën naa tax du ñoom itam ñu mën maa wóolu ba kenn ku ci ne la nekk ci yow itam ma man nga mën ma koo wax bu dee am lëj ma mën koo lijjanti bu dee ab ab defar lu ñu war a defar ma defar ko kon loolu yaakaar naa mooy li nga xam ne moo ci nekk mu ci ci nomination bi nga xam ne moom la ma président nommé itam loolu man dama jàpp ne population département Mbacké la ko defal ndax euh, euh, bi ma fi ñëwee ci APR ak léegi yàggul ñetti weer matu ko fekk naa fi ay ancien ministre yoo xam ne jóge nañ ci yeneen parti ñëw fa fekk naa ci ay yeneen kilifa yoo xam ne kenn ku ci ne fa nga nekk xëy na am nga fa taxawaay ñëw fi waaye bari na ci ñoo xam ne ñoo fa jiitu fop jóge fañ jóge ñëw ci te xëy na amuñu loola. kon cër bu mu jox Mbàkke waaye euh, doyloo gu ma doyloo moo tax loolu am. te loola fasuma ci yéene wor population Mbàkke waaye moom itam fasuma ko ci yéene décevoir kon loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. sëriñ bi ba tey ci laaj bi ñu laaj rek mooy loo xam ne ñeel na maire bi nga xam ne foofu nga nekk muy Daaru Salaam te nekk ci ñu ndigalu sëriñ Moustapha Bassirou sa wajur mu na ñi ngi laaj ñoom it ñi nga xamante ne bi ñoo féete foofa ak association maire yi nga xam ne jiite ko ko muy ñoo xam ne mën nañoo wax say nawle yoo xam ne ñoom nga jiite te nekk sa ginnaaw ak tool yeek ak mbooloo moom nga xam ñi ngi sa ginnaaw te bokkuñu ci biir commune Touba loolu yi ñu ci doon laaj nu doxin bi mel. waaw loolu moom euh, moo moo moom lu lu yomb tontu la ndax ñun yàgg nañ ci ndax 96 ba léegi ñu ngi ci yëngu boobu nekk président commune rurale ba bi ñu defee commune mu fekk ñu ñu doon ay commune ay maire yàlla dogal 99 euh, lañ sosoon association président commune rurale yi man maa ko sosoon ci sama xalaatu bopp la jóge woon. woo ci ñëpp ñëpp wuy si ma ci te itam la ma ci jublu woon weesu xam ne département bii département boo xam ne wuti naag département yu bari ndax département boo xam ne daanaka mën nga ne ci benn kilifteef la nekk ndax commune yëpp dañoo aju ci Touba ndax njabootu suñ dëkk yi ci bari njabootu suñ Touba ñoo ko sanc sos dëkk ba ba taxawu ko ba mu doon commune kon day mel ne lépp benn benn benn benn loxo la benn bopp la kon dafay laaj ñu ànd ñun ñi nga xam ne ñoo ko yor ngir harmoniser li nga xam ne moom la ñuy def ba lañ ba ba la ñuy def du wuute ndax ginnaaw population benn lañ dëkk yi benn lañ kilifa yi benn lañ dañoo war a bokk lu ñuy def di ko waxtaane di ko nas ba nga xam ne wuute du ci am loolu moo waraloon kuréel googu may sant maire yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp nag ndax bañ ko sosee ba léegi at mu jot damay jëlaat poste boobu teg ko ci taabal ji ngeen xamal leen ne yéen a ma ko dénkoon bu ngeen amee leneen lu ngeen ci xalaat mën ngeen koo mën ngeen koo jox keneen waaye ñoom ñëpp dañuy waat ci delloowaat ma ko euh, xam ne la ma ci man xëy na ak sama ak sama volonté ñoom mënuñu ko ci te itam doyloo nañ ma ba nga xam ne xam nañ ne war du ci am leneen du ci am kon ma leen ci sant di leen ci gërëm ci sant population bépp bu dee ci tiib itam commune tiib 96 ba léegi ma fa ah euh, la ma ci man lépp wax dëgg yàlla maa ngi koy def maa ngi sant population bépp ndax xëy na comme ni ma ko waxee ci njëlbeenu kàddu commune moom dooleem dafa néew lool waaye ndax ñun bañ fay ñëw ci commune ba boobu budget commune bi yëpp mëttoon un million commune Tral ba boobu budget bépp daanaka mëttoon un million te léegi dem nañ ba ay budget ay cinquante millions wala quarante nangam million ba léeg mu dem soixante millions te lañ ca man lépp ñu ngi koy def ndax commune dooleem li muy néew néew dem nañ ba dëkk ba village village yëpp benn bu ci ne am na ndox te ndox ma ma fa nekk ñoo fa yóbbu bañ fay ñëw benn école commune yëpp benn école la woon école ba sax classe yi te yaakaar naa fi ne école yaatu na fa daanaka dëkk yi yëpp am nañ école te ci ëpp am nañ ay classe yu doy xëy na ñàkkul ba léegi am na yu ci des waaye yu ci ëpp am nañ classe yu doy xëy na la ca des mooy ay mur de mur te fas nañ ko yéene ndax baay nag dañoo amoon ay priorité priorité mooy li nga xam ne jàpp nañ ne moom lañ ne nit ñi gën a soxla ñu jiital ko ci suñuy soxla li ci ëppoon nag moo doon ndox ndox ma nag mel na ne fi mu toll nii daanaka mën naa ne mat na sëkk nga xam ne lu néew a ci des yoo xam ne ay kër ñaar wala ñett lay doon yoo xam ne ay kër la te mu seen digganteeg ndox ma matul 500 mètres wala lu ko ëpp loolu nag ah, am nañ ci yaakaar ndax te Euh, for am na forage sax boo xam ne war nañ ko fa yeesal ren ndax for dafa am forage boo xam ne bañ 1962 lañ ko fa sampoon Mamadou Dia ak sëñ Basi sëñ Basiru forage boobee wax nañ ba état bi boole na ko ci programme PUDC nga xam ne ci programme ren bii la war a nekk ñëw nañ fa chinois yi ko war a defal ñëw nañ fa natt nañ ko dëkk yi nga xam ne sax bokk nañ ci kër yooyu nga xam ne ñuy wax nga xam ne euh, bokk na ci yi nga xam ne amaguñoon sax fexe nañ ba boole nañ leen ci ba nga xam ne bu forage boobu samp woon ndox ma fa faag waaye day doon tuyau yu mag yoo xam ne danañ mën a sax boolewaat yeneen forage yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ba kon problème mu ndox moom day mel ne day mat sëkk kon euh, bi ci tege woon ci priorité yi moo doon école yi école yi dëkk yëpp am nañ école daanaka fi neen njàng ma macha allah ñu gone yaa ngi jàng fi neen nii am nañ ay maîtrisards yu dëkk ci dëkk ba yoo xam ne foofu lañ tàmbalee jànge te bañ tàmbalee jàng ba léegi ci ëpp euh, mbaa boog mot lay doon waaye parents yi xamuñu sax mën nañoo bañ a xam sax lu lu kaye di jar wala lu bic di jar mm-hmm. loolu lépp ñu koy ñu koy def collège ba nga xam ne sax bokkutoon ci suñ domaine de compétence nga xam ne conseil départemental moo ko war a yor bu njëkk conseil régional moo ko yoroon ren léegi léegi conseil départemental moo ko moom teewul ñun ñoo ko sos euh, la fa nekk ñoo ko fa def classe ya dañuy të dañuy sax tëj classe mm-hmm. tey loolu la tax ñu def ko mooy gisoon nañ ne suñuy gone dañu jàng foofu ci dëkk ba ba am entrée en dem Mbàkke duñ am fu ñu dëkk wala fa ñu dëkk métti na tax ñu ci ëpp dañuy bàyyi te duñ am BFEM ñu sos at mooma ma ma dem ci kali boobu kali du jàll moo fi nekk ma dem ci moom ñaan ko at boobu école sax ubbi na waaye nga xam ne dafa dafa ne woon loolu mënta nekk nga xam dane ma léegi boo mën a jël engagement mu te leen fu ñu nekk foo xam ne day am nangam ak nangam am ndox am def nangam nga xam ne budget at mooma collège ba budget ba sax maa engagé wu jox leen ko jox leen ordinateur yóbbu fa ndox et cetera yooyu yëpp ba ginnaaw bi laa mën a laa mujj tabaxal tabaxal tabax classe ba lépp tey jii bu école dubbee sax dañuy tëj dañuy yoo xam ne euh, amaguñ élèves yu fa nekk kon loolu mu di cant léegi gone yi dañ fay jànge ba am BFEM ren ji yaakaar naa euh, élèves yi fa jógee waroon def BFEM bu ñu amul 100 pour cent duñ ko sori. ci ci admi admission BFM kon loolu ak cant la dara nag du doy àdduna ci boppam moom moo baaxuwul doyul dara doomu aadama dara doyu ko tànk yaa ngi dund di soxla loo xam ne amagoo ko kon loolu dañuy sant yàlla ci li nga xam ne moom la ñu weesu waaye di ñaan yàlla tam li ñu jublu suñu borom kàttan nañu ba nga xam ne la nga xam ne mooy yittee ñu mën ko mottali mbaa boog ñu def ci la nga xam ne moom mootaloog ñun ba ëllëg si biir bu ñu fa fay bàyyi bàyyi fa bàyyil bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi fa loo xam ne danay xam ne ña fi nekkoon nekkuñu woon di taxawaalu wala ñuy fo wala ñuy wala ñuy yàq kon nag maa ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf xam naa li ñu war a wax bari na waaye nag euh, émission mënta jël lépp waaye sant nañ leen gërëm nañ leen sant population bi yëpp nam di yeesal suñ taxawaay xam ne na ma ko waxee woon nga xam ne suñu Moustapha loolu daan wax muy nekk bàyyi Fall ci biir yoonu murit ci rawat na Baye Fall bu sant Mbàkke nga xam ne la mu ci jublu woon mooy xam ne moom sëñ Touba la fi nekkal fas yéene di liggéeyal sëñ Touba ci njabootam gi bàyyi bàyyil boppam waaye njabootam muy taalibe yi nga xam ne ni ko laaj baaraan waxee sëñ Touba taalibe yi rek la am kon ndax taalibe yi sëñ Touba rek la am kon ku kuy liggéeyal sëñ Touba liggéeyal leen ci taalibe yi loolu mooy li nga xam ñun nag politique bu ñu koy def itam loolu dong lañ ci jublu la ñu digaloon def ci lañ fas yéene nekk leneen dañ ñaan yàlla tam buñ ci naree buñ ci bis ñu ci naree nammee def leneen rek suñu boroom mot yemale ko foofa ba nga xam ne loolu duñ ci fekk jërëgeen jëf am